Sall dictateur la. dictateur mag la. dictateur bu bon la Macky Sall. dictateur. Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur. Macky Sall vrai dictateur la. Macky Sall dictateur mag la. pour freedom, pour freedom country. moodu moodu ci àdduna bi dëkk bii lay wane comme exemple lu mu wax rek mu ne Amérique ministre mi ku wax mu ne la même boo demee USA USA du rey nit dictateur. Macky Sall assassin. Macky Sall assassin. Macky Sall dictateur. Macky Sall dictateur. Macky Sall assassin. Macky Sall assassin. Macky Sall dictateur. Macky Sall dictateur. fekku sunu Sénégal sanamatu dëkk réew mi moom mooy ree moom mooy jàppe baanawul tat te teguwul tat voilà nañu xeex ak moom nag xeex la am wa asalaamaaleykum wa rahmatullah Macky Sall dictateur Libérez waaye ñoo ngi fii ci New York yi ñoo fi dajewu quoi nga ngir ñaawlu li nga xam ne mooy xew Sénégal on exige Macky Sall qu'il démissionne qu'il le pouvoir incha allah yaa ngeen jëf gars yi résistance rek. dictateur Macky Sall assassin Macky Sall dictateur Macky Sall assassin Macky Sall dictateur Macky Sall assassin Macky Sall dictateur Société Yengoutuna

dëkk bii la masa moodu moodu ci àdduna bi